li may def leen yéen loolu ngeen def yéen ñi ci plateau bi lu ne ngeen ciy wax ak lu ne ngeen ciy def yéen wax dèjà wax reewoon dana ngeen koy wax dana leen ne eh? non kaay leen parce que yéen ñëpp laay seetaan yéen yéen dama leen seetaan bu nekkul plateau bi yéen a koy def feneen dinaa dugg foofu de ah bu am di moom lu ko neex lay wax ci plateau yow man ngay tëkkale sa bopp. yow yaay kan foo toj foo toj sax laa koy wax. Hmm? Ah? foo toj fii nga toog man fii ma toog moo tax ngeen invité toj tax ngeen invité ma yéen. toj lan moo tax lu tax ngeen di invité artistes yi invité ñeneen yéen toj moo tax ngeen invité ma. c'est-à-dire tamit mën tawee su ngeen invité ma yéen ñii. Hmm. non c'est que a bokk faramareen bi. non du affaire faramareen logique la man bëgg gëwuma ay affaire faramareen. non Wally Seck daa woote ni dimbali ma ngeen jëlal ma Pawlish comme que yéen a bokk gétt mën ngeen waxtaan gétt maanaam moom techniquement comique lay def comédie lay def. Mm-hmm. Mm-hmm. comédie la bu ma bëgg maanaam ci technique la ko jaarale. Mm-hmm. mais bu ko jaarale ci technique ni yow yaa na gën a muus Pawlish da ngay naan taj taxaw xaar. man pourtant pourtant du ma leen xaar de parce que xam naa ne maa ngi gën a intelligent billahi wallahi maa ngi. yow a ko nañ bloqué foofu bu baax njool mu posé. damay remercier rek Pawlish ci déplacement bi mu def ndax i nat kaay na euh, moom amul jot. ni nga koy gisee nii amul jot Pawlish dafa nekk nit koo xamante ni tey mën naa wax ni ci génération bokk na nit ci gën a influence sama njaay mi balaa ko tuub léegi sa tànk bi day dafa am fu ma fu ma jëm foo xamante ni sa morom fi li may nekkee si gara defee ci plateau ba noonu la mel xanaa ngeen pousse taal bi xanaa loolu mais tànk ba fi xanaa ngeen pousse ko ma nekk su man dama ko jàppee sama néeg fii lu ma saf lay def jërëjëf donc man dafa am fu may ñëw foo xamante ni. jibi da ngay ubbi sa loxo yi ñu xam li ñuy wax la la sa veer sama sama gémmiñ ci samay loxo la nekk wala wala sama kanam la loxo ñu xooli. dama ci nga ko photo quarante da ngay ubbi sa loxo eh, sa loxo yi. yow lay sa loxo yi waaye def di mel ne ko julli. photo quarante. waaw. Ah. yàlla yàlla fay la say yéene. jërëjëf yéeg sa ngërëm ba tax na man dafa am fu ma jëm ak Pawlish am di xam nga Pawlish yàlla daa dogal mu nekk koo xamante ni euh, boo ko gisee rek da nga koy sopp mhm. daanaka dafa nekk nit koo xamante ni sénégalaisement parlant moom comédie bi muy def mën nañ ko tuddee théâtre expérimental mhm. maanaam socialement Pawlish saa buy wax day bu bëggee wax dëgg mën na la kaa wax ci intelligent ci kaf ak ci ree macha allah rabbi doguma la de njaay mi ñu jëppar benn benn bu mm. ci nekk li nga jël dangay dangay fay <laughs> damaa dugg ci beneen facteur di liggéey <laughs> waaw soo am naa nañ ci ñëw doguma la nag maa ngi tuub waaw non amul waa syndicat ci boppam ñoo sponsorisé macha allah lépp loo soxla ci njaay mi ngi fii nii falaa juddoo falaa yaroo macha allah jël nga kemb kemb la jël dangay fay jël nga. sump da ngay fay ñu dem. pourtant yéen ñi war a naan ñi war a lekk mbali na de. léegi man Pawlish euh, sama question ak yow dafa am fu ma doon jëm. moom la ma am di wax ni ma say question dafa gudd. waaye damay bëgg nit ki comprendre man laata may ñëw ci question. allez nga nekk nit koo xamante ni socialement saa boo bëggee wax dëgg nit mën nga ko wax ci kaf ak te teew li ngay wax malgré de naan waxuñu reewante la. Mm-hmm. waaye nit ki dina ko mën a déglu ba bu ëllëgee. bu fekkee safaan la def moom moytu ko. Pawlish ma bëggoon a xam. ana lan moo tax nga bàyyi sa carrière football bi nga doon def. Ah. dugg ci cadre comité. dafa yomb te am xaalis te mu jig ma. dafa. yomb te moom xaalis te mu jig ma àdduna la def dalay jig football jigu ma. xoolal ma ji ngay sànni fii fii du fii du ëtt. yaa ngi ko maanaam football jigu ma. Mm-hmm. ma yàlla vidéo doomu adama mm-hmm. ku nekk yàlla mu lay vidé. Mm-hmm. yàlla des fois mu vidé simbukat mu nekk rappeur. Mm-hmm. sàcckat yàlla ne def ko mu nekk euh, kuy jàngale alxuraan yàlla rek mooy vidé ci àddina. yàlla ay xool ko ni mu vidé le yàlla ma vidé ci football dama ko mën xam ni ñuy footballé yàlla ma vidé ci comédie waxi dof yàlla dimbali ma ci mu mhm. yomb loolu yàlla di ma ci dimbali moo tax ma def moo tax ma def moo dof a yomb ci li may liggéey parce que bu la jigee man ma yomb ci wàllu ah, mhm. mhm. xam ne tamit jig tamit ci la bokk de des fois ñu man man des fois xam nga nit du nax boppam des fois ma gis ñu ëpp talent téeméeri junni yoon ñoo xam ne bu ñu waxee ñu ëpp talent mais suñu borom mooy xool li ko neex mu def jagleel la mhm. man euh, euh, dix ans maa ngi waxee doon ba tey xeeyu ma ba tey maa ngi ciy def lu ma neex su ma demee ba des fois damay jël congé rek loo parce que c'est normal foofu laa toll da ngay jël jël congé loo tuuti seetaan seetaan seetaan sénégalais yi des fois ma yëgal ko ba yënga ba ba yëgal ko ba ci a kaw hmm. te taxaw foofu su ma neexee wàcc su a wàcc ban mafia nga yaakaar ne may topp parce que foofu laa toll boo nekkee nit bëgg a waxi dof da nga may topp foofu ok mais Paul yow sori woon nga ci football ah mun gén gén naa ñetti hmm. coupe du Sénégal hmm. damaa mun ak ci Touré maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. nee naa Kenza. di nuyu Touré man bu yóbboo. Touré gaañu na. yal na ko yàlla xaaree àjjana. nga koy nuyu. seen ah nit ki ki bu gaañoo da koy ba koy jotale. <laughs> non non yaa ma bokk bu gaañoo des des fois nga nuyu ko ne ko maa mu ne li nga laxas noonu la daa daa dagg. te du dagg. billaay mu jarul nuyu ñaan ko. loolu nuyu yal na ko yàlla xaaree àjjana. waaw waaw moom ci ko football moo ëpp xaalis. déedéet yóbbu mën naa am xaalis te man du ma jëkk li pourtant li may def am na xaalis man xaalis ni ma ko amee rek baax na naa mën naa am xaalis. yow nii yaa ngi ci yëg sa bopp. moo tax ma yor ay oto. tabaxal sa yaay. sama kër am piscine sama kër am kilim. dindi piscine bi. am kilim déggoo damaa juum am kilim. kilim te man aw ma woon kilim déjà. Mhm. sama néeg dafa ñaawoon léegi maa ngi dawal voiture ba am kilim. maa ngi am xaalis tuuti. macha allah hmm? yàlla may dama soxna su rafet. macha allah sa baat bu baax. déedéet eh, ni lay waxee man waaw. macha allah am di am a ma invité nu ma neex sama baat su ma neexee te dañ may déglu a ma invité yéen a ma invité yow ma rek. man ma at du ma nawle ngeen de. doonu yamale wala nga naan fi ngay yam di choisir loolu amu fi. non man déggoo man lu ma neex laay def déggoo man lu ma neex laay def déggoo dama ko jàppee sama néeg man xamul ne loolu yëpp. gis kii da nga ko jàppee sama néeg plateau bi nii man site internet laa la jàppee nii. mais yow lan laa la bëgg a laaj Pawlish bi nga amee jabar ba tey changement am na tuuti. c' est normal parce que jabar nawle la. ah bien eh, la boo amee jabar yu bari yu a téye waaye moom bëggul may. changé mais ci rythme bi nga jël nii ragaloo xeewee. déedéet ba tey maa ngi ci dëkk bi. mais li ñuy def nan ñuy xeewee laaj ma lu tax. Hmm. lu xew lu nekk loolu la ñuy wax. waaw dafa yow maanaam tey. par mbir xew muy actualité. boo ci waxee day ànd ak yow dem. kooku moom du xewi képp kuy def loolu. actualité bu ñëw nga ànd ak moom. actualité bu ñëw nga ànd ak moom doo xewi. léegi euh, moo euh, léegi du ko rek. Mm-hmm. nañ bàyyi Aram Fall mm-hmm. mu dawal tuuti. boo Aram Fall jox bi baa mu dawal ñu ñëwaat ci plateau bi. jërëjëf atiwa Aram Fall. kon sama njaay jigéen la dundal noonu mais Pawlish. alors <coughs> <coughs> parce que dama gis. xam nga yàgg naa la suivre yàgg naa la xam. Euh, dama gis sa relation ak Wally Seck. dafa uuteeg yeneen yeneen gars yi quoi. Uh-huh. ndax man dofuma. Uh-huh. xam naa ci ñu bëree bëree bëri. daa ragal waaye. Uh-huh. mais dafa am ay relation yu nga xamante ni maanaam mën nga ànd ak dix personnes. am li am koo xamante ni moom moo lay. gën a bëgg loolu day comprendre te gis naa lool sa digganteeg waale. lan la quoi ànd nawle lañu àndee xam nga nit ki boo ko àndee moom def ko ànd nawle rek da mhm. du alal bi du al du xaalis bi. bi merci du kuré. naa ngi déw léegi du du du du bi. Mhm. ànd nawle lañu àndee ma ak moom. Mhm. mu nekk sama xarit tamit. du ànd nii nii sama xarit normal la. yàlla boole ma moom. ba muy métti. Eh, yàlla bu la dog. Pawlish defaratal sa toogaay. mu yow moom comprendre de fii sama ndig laa ko jàppee man ba tax xamoo sama ndig laa jàppee fii yow. maa ngi barke alxuraanu karim non ma la yéen a ngi soog a invité. musuma jël position ci télé bi maanaam toogee ko def ma tontu ko ci li mu wax parce solo. garaaw ñun nañu féete woo dof yi rek garaaw. <laughs> yaa ngi comprendre. dañu xuloo bilaay mbay ba. continué wallaay continué. yaa ngi yaa ngi comprendre mu ñu nekk ànd naa lu nekk sama xarit ba muy metti lañ xamante. Mhm. mu dimbali ma ci ñàkk yóbbu ma ci am. Mhm. ndeysaan. ku baax. dafa baax waaw sabaas ku baax la. ku mën itam. ba pare dafa gore xam nga ni ki a na baax. Mhm. te àddina yàlla na ko yàlla defal jàmm. waaye sama xarit la. du xarit nit sama xarit normal la. ndeysaan. ma ngi lay nuyu bu baax a baax. posé nga ma question bi gën a nekk ci question yi parce que question intelligent nga ma posé. ba pare dama seetlu benn hmm? gis ci yow dignité. loolu bokk na ci li gën a tax. nit ki di la nawloo. waaw man xam nga dafa am benn am ci man damaa am fulla mhm. man damaa diñ. Mhm. ma ñaan kenn ku ma da nga maa may ma. musuma ci da nga maa may ma. du ma tim nit di ko sinam naan la yow la diw ak mhm. su ma sinabee nit jàppale dinaa feeñ après. ma la si def rek bàyyi la. daa mel da ngay gaaruwaale de. non non man dama gaar man noonu laa mel. waale su ma wax li may wax que dama xam dama xam waale su ma wax seen nii. Mhm. boo toog une minute di ma gis ki parce que man damay kii sama bopp. Mhm. loolu laa mel. Mhm. man diw yaay yaay diw yaay il faut waxaale sama yaay loolu laa moo tax amul Sénégalais yi kenn ku ma yab barke Serigne Babacar si laa wax du mbindeef moo taxaw di xas amul kenn mais est ku ma collage di ma wax ci ñàkk fayda nekkuma ci loolu parce que man damaa wax ne damaa ñàkk ba ñëpp xam kon man nit mënu maa yab dara parce que xam naa sama bopp du ma ñaan nekku ma ci lu ñàkk fayda te ma man ngénte sax pour ma def fa problème la déjà man ndax la ngénte parce que ma ko du expliquer du dara mais loo tàmm la tàmm ma loolu daa doo dem parce que football lan ma ni ñu xaayee ma doon dund football ma dund boobu moo nekk sama bopp ba lii may def nii ma génnee ak dox nii damay nekk mhm. ma ah, def nii fii la yem su ma génnee nii non non danaan kii du Pawlish mhm. parce que su ma nekkee su ma nekkee ci lii nag damay def comédie mais bu jeexee jeex na de mais Pawlish yow yow yow yow yow lu ñu jaaxal mooy Pawlish waxu dof d'accord Pawlish footballeur la waroon d'accord mais am na benn métier boo xamante ni da nga demoon defi ko ba après nga daw. ah. immigré Moodu Moodu. xam nga déggoo ma ne àdduna loo def dalay jikk mhm. da nga immigré yi woon. damaa doon football yi. Ah. waaw doxul. Ah, pour football nga demoon quoi. ma dem Primavera Inter Milan. nga ni. Ah. demul foofu xam nga li problème. alors da ngay nii. waaw maa ngi ànd rek ci mais lii mënut a ñàkk xam ku neeful ci àdduna am yàlla may na de dama saa rek dégg nga bañ ñun di dugg rek wéerul lii ma xool police bi xool bi traversé di ko di ko maas nga ne inter lan yow <laughs> naa primavera inter eh. inter benn yow lu la yóbboon euh, Europe nga ni waaw looy ree dugg rek dama def football yi yow Wally Seck la yóbbu Europe. xaar ma ñëw ma defal ndànk ma wax la. waaw doo dir man man man mii man Wally Seck moo la yóbbu Europe ne la pour nga dem daani sa doole. déedéet moo tax comprendre dal mu dal la ma hôtel bu tudd Xayaat. Xayaat Xayaat. daal mu dal la ma foofu déjà. moo hmm. jugee France dem Italie dajeeg benn xaritu nongolo bi nongolo doon way ki taala ki pas taala meng kii. jiili noonu du jiili de. Ah, te mu dëkk Pikine mu boole foofu may yë yët jiin di jaay. Europe. Italie Milan mbedd ma may jaay ah, waaw booy maa ngi ànd rek te nii woo ma ci kanam. <laughs> moom miinul yi quoi man may jaay. Mhm. léegi grand bi gis ma ne ma ni nga amee talent yow waroo jaay. ok talent. waaw dégg nga baat boobu baatu talent. talent waaw ko amee yow waroo jaay mu ne ma mercredi da ngay ñëw ñu ñu dem entraînement euh, xale yu ndaw yi. kiwindi ci xanaa xamoo ne loolu mooy 15 ans. 15 ans waaw ñu dem nga entraîné foofu ma ne ko ok ba bene. parce que man damaa teel a dikk parce que fii laa ko rêvé Italie. Mhm. ma dem ma dem boobu maa ngi sol ay Air Max laa sol. mais avant ngay dem dégg nga làkk bi quoi. si parce que dama ko bëggoon. ok man mhm. Moodu Moodu bu ñëwoon Moodu Moodu bu ñëwoon dama lay taf parce que dama ko bëggoon. parce que sama kër amul amul kaw man. ok maa fa njëkk a tukki. da nga yàggoon rêvé loolu quoi maa fa njëkk a moto. fa njëkk a xam maa fa njëkk a dégg man. <coughs> allo. Eh, bàyyi leen bu ñu woote ngeen ne allo fii sa morom daw fi ba ñuy wax ak yow. sànq ba léegi nii nga jël may may en parce que ah. yéen tamit yéen invité yi bari nañu yéen yéen a <laughs> donc ñun li ñu mën def mooy man fi ne damay muñ muñ leen man loolu laa man jaay ko ma ñëw ma ñëw def ay test. da ngay continuer ah. ma ñëw ma ñëw. ñu yóbbu ma histoire intéressante parce que lii dafa am solo. waaw ñu yóbbu ma ja am na benn xale sama benn jigéen bu tudd Jaara mi ngi Italie mm-hmm. parce que man ko jaara dama am ay test mu ne ma fan ma ne ko euh, ci xale yi euh, inter yi. maanaam da ba tollu wàññi parce que man ba may yóbbu kayitu mineur laa yoroon kayitu mineur ki windi ci 15 ans parce que moom laa yóbbu. 15 moom nga amoon. moom déedéet amuma woon loolu parce que moom laa yóbbu samay document yaa a dee xale. yaa yaa ma dem <laughs> ma jaara jaara jënal ma euh, fi Euh, doomo dafa am quartier bu naan doomo benn itali foofu du fa jaay daal bu yomb mu jënd ma dàll bu cher ay vapor max a ma jëndal. Mm-hmm. vapor waaw vapor. Mm-hmm. mu dem jëndal ma sama premier contrôle tubaab bi dañ ne non non barke salaatul faatiha rawal ah, ay ma mës a gis lu mel ni ci àddina am ci mën football barke alxuraan kii eh, eh, football am daf may damay jox bu Kempes xam nga Kempes Mario Kempes waaw voilà dañoo nuroo teg teg intervalle lay paas te intervalle paas te damay jaar sa kanam damay man yàlla loolu ma dimbali ma def fa ñu ne ma il faut nga def euh, test kii feeram hmm. test lépp sa yaram. Ah, ah, visite médicale. kii mm-hmm. feebar ko ñu ne il faut def visite médicale. Mm-hmm. yàlla dafa def sans passeport. boobu nekkoon nañ ay tolof tolof. yàq nañ passeport bi. Oh. non Paul dimbali ñu xoolal sa téléphone. alors ñu muñ tey léegi wala ah, yow. muñ tey yéen ma invité de maa ngi en direct ah. <laughs> tooñ nga ñu de. Mm-hmm. yaa ngi <laughs> ma def ay test léegi ñu jël ma ne ma il faut ma def test médical visite médicale visite médicale rek sama boobu mënu maa wax lu bari nag yooyu mënuñu ko xóotal fii waaw non non waaw def ma arrêté parce que saanoo woon wala saan wala affaire këyit la ma ma ni ma découragé nag boo waale mënu ma ñëwaatal mais mais mais attends Pawlish foofu instant T bi la tubaab bi lu mel ni musuma ko gis. noonu may bis solo wax noonu may bis soo. waaw léegi bi mu la waxee loolu. musul gis lu mel nii ci football. Mhm. instant bi lan nga lan moo ñëw ci sa ban. sama xel moo njëkk ñëw. wóor na say signé contrat pro. laa ñu ko la gis sama àddina. Mhm. billaay wallaay parce que moom loolu laa bëgg. lu barki signé pro et sama dama sol ba ci suuf inter barki alxuraan su ma dem entraînement amul kenn kuy tubaab te noboo ma mu barki alxuraan. billaay wallaahi su ma doon entraînement su ma doon entraînement maanaam ku ñuy nopp munoo munoo dem munumaa dugg ci munumaa dem ah. eh, munumaa dem ko mais yow du ko def mais sagam fii lañ koy noppee waxuma la police tubaab bi mais ma taxawal rek leen nga suubi sa la wax ki kan moo koy nopp <laughs> man nga am jabar ba takk jabar waaw xanaa léegi parce que waaw damaa ñàkkoon boobu mais ma jàmm léegi léegi ma lu ma neex la lañ koy noppee waxuma la sama Europe réalité yi bokkul de nit nit bu nit bëgg réalité Sénégal moo nekk benn la parce que xool xool la déedéet am bokkunu de. ah tubaab mooy xool koo xam ni comme ñu ma jënd nii ñu la bii. yaa ngi dégg waaw déglu ma. a ñaaw bay tax si dara. tubaab xool loolu de. tubaab xool loolu de. tubaab tubaab xool loolu de. waaw mais ma leen bu leen def foofu arme yéen di ngeen maa invité yéen xam naa fa ngeen fa ngeen bëgg a jaxal ah, parce que amu leen fa la jamono ci man yéen amu leen fa jërëjëf xóotal fii pour ñu lay humilier déedéet parce que mënuñu ko aman mi réew mi ndax yow yàgg ngaa dégg dugal dégg amagul mu réew mi ah, bu bëggee nii boo xoolee tuuti dañu xawoon duroo ay jaar-jaar mhm. Wally Seck lan la gënoon bëgg ci àddunaam football Pawlish mi lan la gënoon bëgg ci àddunaam kew ñoom ñaar kew eh, kew lan ñoom ñaar ñëpp est-ce que yàlla def na foofu seen wër kew laa gënoon bëgg sama àdduna bu Wally Seck di way. mais Amady bi bi ma xa Amady eh, lii bi da kaa émission bi. émission bi waaw dépassé wu ko de. Ah, am ci boppam gars yi ngeen ah. ah. am ci ni ma ko xamee am dama xam ay humeur am am di fi ne nii. mi ci beneen projet. bu ko ëpp doole. maanaam émission bi mënul ñàkk ba ñëw parce que booy présenté. mais ñun lan ko gérer. non dama amoon benn benn ah, ah, ah, benn sujet sujet verbe complément bu ma bëggoon wax bu am eh. tout silence may ma rek benn silence bu ndaw rek aara yaa ngi dégg <laughs> xam nga des fois dañuy waxandoo ba des fois boo nee dama ne da ngay rek après doo yegg complément mm. day mais maanaam fu mu bëgg a xam mooy léeg-léeg ñaari nit ñu bëggante yàlla dañuy def dañu boole am na fu ñu bëgg a bokk déggu ma la s'il te plaît fii du nekk lu ñuy maye de loo fi jël lañ koy fay. am nga fay am nga fay concentré wu nga ci benn ñaar dërëm la concentré wu nga ci football demul Wally Seck concentré wu ci football demul mu ñëw di way nga ñëw nekk ci wetam nekk xaritam yàlla loolu lay wane yàlla lu mu namm ci diggante nit xarit la am par force day am lii day am loolu laa jàngee nga dugal sànq talent tey boo nekkoon di wax waxi dof te defoo ko techniquement ànd ak grandeur wane wu ful la bi ngay wane ñaanuma kenn dama pànk ba pare mën sa nit parce que am na nit ñoo xam ne bu ñu xasee ne tàpp tip tippoo ñuule ñuule la. waaw leen gis ci leneen. Ousmane Bari feneen. bu rëgg donc kon loolu mooy ñaari nit ñi war nañ mën a ànd. waaye bu dee tubaab ba ñu arrière foofu nga bañ fi nga bañ ñu laal ko. laal fa mooy maanaam tubaab bi xàmmeewul ku ñaaw ak ku rafet. ok sentiment la xam ak ki mu bëgg. ma ne ko ok lay xool. ñi kii daf ma neex ëllëg bu nu jurante doom mën na nekk lu garaaw quoi moom tubaab foofu lay gisee. ok ok pas chercher. comprendre nga par rapport ak ñun Sénégal te ku rafet la ñuy wër. Uh-huh. tey micro bi yow eh, yow jàllal ñi nga mel ku génne sànn naa wul jël fa wax na dëgg nag ñu ngi doon ko invité nii suuf leen ah? ni ngay Adama Fall ni ngay lekkee bi rafet na trop Adama Fall jëlal parce que man. dëgg na jël waaw <laughs> li ma koy laaj mooy ci côté Jamra Pawlish bi ñu la joxee xaw ma li ñu la nomeli ba tey yow ban ban mission nga mës a accomplir ci loolu. dara <laughs> ah man loolu mu jaaxal. ay live ay tëkku. comprendre ay maa ngi lay fekk Gambie ba pare Modou Lo. Modou Lo bu pare bu ko Modou Lo la wax. gisoo lu wax la ak dageer. non kii dafa am liggéey nay. kii am ah, ñaar dafa wax ci la dageer. laay mu wax lu rëy. <laughs> te la dajeel daa mën a dugg. pare ngeen dafa war a tontu. man xam. wala euh, pare la ma police baale ma police. waaw jël ko. Ah, foofu la arrêt. waaw laaj tontu mission bu mu mës a ah. accomplir ci Jamra ba pare. lan nga mës a def mission cest à man seen wax du fort dañuy wax ci kaw a accomplir a loo xam ne ci lu illégal. <laughs> police baaloo daanu. dama sonn nga dañoo gis lu mës a gis si àdduna. déedéet moom mii ak émission bii. lan nga mës a liggéeyal Jamra. lan nga mës a liggéeyal Jamra ci li ñu wax ni nga xool ko lu illégal nga dénoncé ko. parce que man aw ma jot a xool nag man maa bëgg ñu may xool. waaw kon yow lan lañ lay dugalee ci Jamra bi. xew. Ah, yàlla di ma suturaal yàlla baax na. nooy na léegi nag ñëpp taxaw dégg naa sa benn interview nga nga nga euh, xaw ma ci xëcaa moo la invité woon. ngay ngay wax lu am solo. waaw ci góor jigéen ñi voilà ni di di nga. ak ah, dugg ci seen biir. giwi ni ñoom ñëpp génne waaw jàpp leen ah, yóbbu leen voilà. kii bu duggee foofu dafa loolu ba léegi dégg ko moom. ah pardon bu duggee du fa génn ay xaritam lan. ñaar yàlla giwi ni waaw mm. say xarit man xanaa xamoo lu bon. man xanaa lu bon. déedéet man bëgguma lu bon. man dama am fitu man ci télé ñëpp dama seetaan ma leen wax normal parce que dama leen wax nu ma neex yow ñaata giwin nga xam ma xool Sénégal ñi ci nekk ay giwin bari na xam nga ci ay nit. yu bare bari. mun nga leen cité seen tur. déedéet ah, ah. déedéet maa gën a muus ah, am di maa gën a muus nee naa leen maa gën a muus man posé wu ma leen question Pawlish laa posé question. way muy doole ma bàyyi man mi yàgg a def lii. am di dama mën a dugal ma. yoo la jëli ko yéen ñaar la. kay maa yow kay du ore. ñaata góor jigéen nga xam. ah kay kay maa yow rek. jëriñoo tey leen ngeen lekk ngeen bàyyi leen. ñaata góor jigéen nga xam. ndax boole lii ak gerte gerte kem tàkk tàkk la de. Hmm. non def kiiw ci dara yéen dafa na jël eh njëgu ñaata nga jël. <laughs> cent franc aadama mooy jël. cent franc yow ñaata nga lekk buum. xam la. du Pawlish maa koy fayal. yaa ngi ci 15000 non bàyyi ma fayal la. kan mi ngi ci 15000. kii lekk na 15000. <laughs> yow lekk nga 1000 lii lépp marul 15000. ruum la yox la. ayo hmm? ñaata góor jigéen nga xam. bari yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal. ah waaw. diggante fan ak fan. yow foo dëkkee ban quartier. Castor. Castor ba am na. oui dëkk bi foo gis am na ay góor jigéen. yëmbal la amul. ah kay. la illa yëmbal ay dara ay der. der der yàpp ci yam. faas mbaaw bu leer nañ ngay dégg. der der yàpp ci yam. yem yëm si nekk góor yàlla bu mu ne góor jigéen góor jigéen du ci góor yàlla góor jigéen moom ma demaa nga gis ñu kenn ni ay góor jigéen lañ mais yàlla leen yàlla leen waa nattu waaye dinaa wut dina ko naa dina ko benn waay benn waay benn waay benn waay dafa dafa am benn waay joo xam ne borom ñaari tur la. waaw waa ji di ko di teral di ko jox ay yére di ko teral di ko yóbbu këram. duggoo ko mu sangu piscine comme ni nga ko bëggee mu def def yëpp mu des ba lu dul Mansour waru ñibbi ma moom mu waa ji moo tudd Mansour waajoo ki ñuy wax borom ñaari tur mm-hmm. sa waay mi ngi tudd euh, laay Pape paam dem bay dem mu teg ko loxo ni ko gaal mooy seen gaal yu lax yooyu noonu ni ko ni ko croisé ko ci ginnaaw def <laughs> nee da koo gaal mu jékki-jékki mu ko wàccee loxo mu tudd ni ko Mansour looy def nii Mansour <laughs> Mansour koy caressé Mansour Mansour waxoo kon nag booy liggéey nii am sa xaalis te eh mooy naan waa sànq waxul naan ataay sama iman rek la ah. <laughs> garaawul de mais Pawlish ne nga yi mm-hmm. man du ma artiste comédien man damay naxaate. man man man naxaate kan laa. yi man damaa jot a fay. ok man damaa mën a fay série. Mm-hmm. ku woon ci ay série. yow su ma la woon doo ñëw. man Doucouré. ma woo la ne la Pawlish. dama def série benn la def série te dañ ma cee maa kii ko bokkoon Hmm. mi koor gi. à part duma defar loolu waaw <laughs> non dañuy yàgg moo ko bokkoon la. man man loo wax dama koy xam. man loo wax dama koy xam man ak yow ñoo ko bokkoon laa. ñoo ko bokkoon non moom moom li muy li muy joué sax. li may xam Pawlish Mbaye yëpp psychologiquement ci wàllu théâtre. ñun soxlawuñu ko. waaw ah. Pawlish Mbaye du ma ko ñun soxlawuñu ko quoi. non soxlawuñu Pawlish. loolu xam nga nit bu taxawee ba ni buñ ma woowee mënoo leen ma fay. mënoo leen ma fay de. wan ko ni soxlawuñ la dërëm. barke tax bu dee langage bii la indi foofu noonu ci monde boobu. <laughs> théâtre doxewut noonu. théâtre monde la boo xam ni mise en pour yeete kaay nag kaay nag théâtre amatul ñu suivre ay porno doon damay déglu ay porno fi a gis ci théâtre ñu di ay ay sangu piscine di ko tante ñi wane seen wee nii seen awra yi loolu nga bëgg di xanaa xamoo ah ma ngeen baal ma mais yàq kii yow. man. Mm, am di am di da ngay sigg nga mel ni kuy foto nii. <laughs> ji bi. mais mel ni Pawlish da koo jaaxal. Mhm. Pawlish ma de. Ah, mm. boobu ba yaa ngi ni nii di ko xool rek. non non Pawlish jaaxaluma sax. Mm. léegi lan la. keneen ku du Pawlish jaaxal ma dama dama koy dama koy déglu. Mm-hmm. dama ne yow nu ñu yàqee théâtre dama ne yow Pawlish nga ne yow lu tax mënoo jouer série. très bien mënuñu maa fay. mënuñu la fay ok. loolu moo tax doo jouer série. te man bëgguma ko naa ma defal lii. man maay da wax defal lii. bëggoo ku la moo tax xam nga monde bi mënu fa bokk. kenn kenn kenn du ma ay eh, defal lii tourneel. non dafa bokk dafa bokk kenn du ma def loolu. yow non non doo man tey sooloo man kese la. doo bokk loolu boo ko bëggee dama nga dem dem dem feneen fay sa. kii xam na ci dara. dama lay nettal lu neex. tànn arrière bi ah yéen ma invité de. yéen a yéen a jël leen rek yéen a boobu li ci neex. kii naan yéen yéen mën a cadré rek waaye yéen a moo boobu série boobu Doucouré waaw maanaam dañu scénario yi li nu bind mhm. dañ ko wax kii benn yoon xam naa boobu miinagunu mhm. mu def ko benn yoon ci suba si maanaam journée tay boobu mu def ko nice ci suba si ñu dégg a def loolu mu ni moom du def loolu <laughs> ñu ni Ouzin Keita yaay bëkk déggu Tapha Touré bu Ouzin Keita di bat Paul Diop fu mu ne fa laay def ndax man mën mënu ma Paul Mbaye Cissé man ma dem toog ne loolu mënul nekk kon affaire am na par parloo am na ay kii man damay jibisey man new ma ci loolu man damay yor samay fant ñu dima sara Paul Diop ay fantam xoolal xaw fa leen mujjee dañuy toog ba yàgg rek gis ñoo nii gën naa gis kii de euh, Ousseyn Sy dugal leen noonu la ko doon ah, amul woon scénario scénario ba ca boppam hmm. moo dem bëree la nu jotoon na bind ak yëpp maanaam ñii boo bëggee dégg-dégg. vous étiez maanaam comédie bi léegi. à ce moment vous maanaam comédie bi ah. moo am léegi ay yeneen xeetu meññeen ñi meññeental. mais je te pose dafa mel ne coronavirus xam nga da nga daan dégg feebar da jàpp ni sibiru mooy feebar. Mm-hmm. ak yaaco ak yooyu léegi coronavirus mooy ñii. léegi au moment que loolu du véhiculé Djiby Seye. Mm-hmm. vous étiez où. Euh, xam nga nag man nag dama lay wax benn mbir mooy que ni tey su ma ñëwoon ci scénario jàmbur. ci jàmbur waaw scénario jàmbur mhm. le producteur ci boppam mhm. ni moom lii la bëgg mhm. ki la jox xaalisam ki lay fay moom ni moom lii la bëgg loolu laa koy defal loo nga koy defal mais bi sûr si mooy fay xaalisam moom moom produit moo koy jaay non du fa nekk di xeex ak moom day mel ni maa gën a bëgg yëfam mais dootul xoolaale sa image mais xam dafa toog ci télé bi ne Kouthia dinaa la may un million njoor moom ba digg rek moom la ñu wax. non non su ma ko lekk. yaa ngi dégg barke alxuraan kër. barke Seydina Muhammad billahi kafuma réew ma lii yëpp. njool mi ngi ci kii damay jaay. non man damay fay. waaw léegi. moom mi ngi ci vingt cinq mille. Uh-huh. aywa <laughs> kii dafa toog invité dañoo invité Kouthia. Kouthia seeraam naa ko waaw. mu ne dina ko may un million. Mm-hmm. en direct en direct. ma woo Kouthia ne ko ndax police jox na la ma jox ko. yi day showbiz. laaj naa la nga ne ma jox ko ko. wol Kouthia. Pawlish nee na ma jox laaj. direct xam man du ma toroxal dawaana wol Kouthia nga laaj ko. Hmm. yow jox nga ko un million. ba pare mooy genre. ma wóoree da ngeen faa xamul man ma nee lii la dama koy man loolu laa mel Kouthia si normal sama papa la man su ma ko waxee dama koy def. Hmm. barke Serigne Ba waxati du ma fenn xaw sax nuy feneen. mais keroog bi nga demee dem Gambie lu tax demoo Gambie ma leer loo xam ne dama Gambie parce que dëkku ci maa yow. demoo Gambie yow ma ah, yéen ko damay dem duma ji ci baat bu sell bi nga xam ne moom la ñu yaree ñun ñu théâtre waaw moom moom moo yox beneen sens bi nangul nañ ko Europe léegi moom day dem mi ngi départ ay dof moo tax ngeen invité ko départ duma kii ah? ah, Cheikh Ahmed boo départ yegg Pawlish ni ma xamee ak ni mu bëggee wax lu leer. Mhm. bu yeggee dinañ bag baa ngi nii maa ngi nii traversé. dëgg yegg naa demut. yéen daal yéen daal invité ngeen amul looy may laaj. Mm. ay yëf yu manqué a wow aller ak retour. ay yëf yu manqué may laaj foog ah, la laaj bu baax émission bi foog naa ne yéen da ngeen may jàpp ko otaat wala mi ngi sax yéen ne yéen. non non tey moom non non ba yéen lu ma yéen ban daal. non non tey moom am di dafa loo xaw ma lu. xaw ma loo man la. déedéet man la de kii buy ñoom ñoom dañuy noppi. noppi jëm fan. barki ñoom moom daañoo faral kaw. parce que kii eh, kii kii tubaab la. kii bu xaaree ñu laaj ko question nit. laaj leen projet sa projet lan la ñun yoruñu. kii amul projet ah. Ah. Ah, eh, kii amul projet kii amul projet lan mooy sa projet. Eh, la lan mooy sa projet. man défendre ma police. Mhm. dama fii na yaa ngi ci 15 ñuule. Eh, <laughs> waaw non lu mu doon neex na. police. Mhm. Euh, nit ku social la. en dehors kaf agréé maam nit la boo xamante ni dafa mën a dimbali nit. mais lan mooy projet police. projet police man. loolu xaw ma waaye moom dana ko wax. Mhm. du ma leen ko wax de Fra du ma leen ko wax de projet bi yu ma xam mooy chaque corps. chaque corps. Mhm. day maanaam day dressé diggu këram. ah loolu ñëpp koy def daanaka. bokkul de. ñëpp koy def kon bi mën naa wax sëy. képp kuy ndogu fa ngeen. man la man a seede parce que. moom <clears throat> am na sëram ma koy ma koy eh, ñaanal yàlla xaare ko àjjana ndey soxna mhm. sama doom la woon sama xarit la woon. waaw. bu mu ma bëggee kii sax sa grace a moom ndax yi may expliquer li muy def. ak ni mu taxawoo seen waa kër. waaw loolu moom dëgg la waaw seen waa kër. mais yéen da ngeen invité la wala pour bi ngay teg fii ah. man la yéen da ngeen invité Pawlish nii pour bi ngay teg fii. di koy raay wala da ngeen. waaw dóor ma. wala yéen a taxaw nii waaw waaw dóor leen ma waaw. wala yéen dóor leen ma xamal dara loo xamante ne moo tax ngeen di raay question. mais yow am na yow tam la ma ko posé ma question bi yow. mais loo xam ci technique de communication dafa. waaw léegi waaw léegi moom mii nii. mooy chef de gang bi kay. yow yaay chef de gang bi kay. fii gan amu fi ah, waaw ban kay mais kii ah. taalibe suñu Babacar la muy taalibe suñu Babacar bërit la def mu roof ko seddaay man nga ban seddaay la ko jox hmm. grand man dama la bëgg xam nga ni doon ko dama la bëgg pare mu lay yóbbu feneen. man bañ ma. kalaabaga benn affaire déglu ma. non non Adama non non dama koy simé parce que damay xool li muy ji. waaye may ñu jàmm nga am ay. ak ah, tamit ni muy intelligent waaye bokkul ak ji. waaw léegi l'intelligence dafa non non non duñ la posé question. waaye laaj leen man li ma bëgg xam ma tontu leen ba tey. loo bëgg laaj la ko yéen a xam ne yéen ñi ma ah, invité xanaa ngeen a xam ne ma war a laaj. ah xanaa yéen ñi ma invité da ngeen ma war a laaj. dëgg dëgg yéen ñi ma invité. war ngeen ma laaj leen ma. dëgg dëgg amuñu loolu ma laaj loo xam ne. yéen amuñu amuñu lu ma laaj si amuñu lu ma laaj ci àdduna. Pawlish Mbaye amul projet kii ñu dugal ci xoolul mbay heure bu génnee. du ko mi ngi sa poche yi. yaa ngi ci eh Ibrahima. barke Seydina Mohamed damay liggéey te jaaxaanu ma suñu ñàkk yi. suñu ñàkk yi. ok daa indi dànk ji. teew dànk bi. waaye yow léegi. waaw léegi bi wax. waaw damay wax ñaari dànk. yow yaa ngi woon 15 ñuule gerte kii am na 1500. yow moom yow moom xam naa ne yaa ngi ci vingt cinq mille mais dama la bëgg wax benn affaire Pawlish kemb lu muy jar yow bu la woowee fii poto kemb ñun ñun xam nga ñun dañuy ñëw rek ñuy jox bu ñu woowee fii Pawlish Mbaye tey parce que quelqu'un la au Sénégal mm-hmm. non quoi qu'on puisse dire quoi. dëgg la qu'on se dise la vérité tey yaa ngi def loo xam ni ku génn ni Pawlish Mbaye. Mm. Pawlish Mbaye yu Sénégal la quoi. mu femet la wax la wax. parce que da nga koy xool. wax ju metti nga noppi te te gémmiñ boo dee góor la ah, parce que man Pawlish heure bu ma ko gisee damay ree yaa ngi tax ma koy ree. Mm. kii ma ëpp fit laay wax maanaam fit mooy sañ-sañ bi maanaam li mu nangoo génn ci lan pare di dox. ku ci mel ni. mais nga yaakaar ne loolu kilifa yi nga koy bu baax ki kilifa yi di ko woo. ki kilifa yi dañ koy woo loolu sans problème lan la Pawlish Mbaye. kilifa yi di ko woo. waaw yaa fekk loolu moom toog naa du benn du ñaar ah. Lis Thierno Fall the king. Lis. du benn du ñaar toog naa ay kilifa yu mag di la woo. ah xam naa xam na xam nga xam nga xam nga tamit lu bari ñu ko wax. xam nga lan. yéen daal invité laal leen ma laal question bu am solo daal. laaj ñu ma fi daal sama projet seen i ndek si yéen parce que yéen seen yoon nekk ci yéen ñi. xuus. léegi am na yow sax su dañoo war a invité Pawlish. nga ni yow pare nga ci bu yàgg tool xaar. looy xaar. Hmm. léegi yow. léegi coow li nga xam ni. Hmm. gars yi naa naan Mali Mali Mali. luy loolu. moom dina xam li tax mu wax loolu. demul woon de. te moom demut dimut dikkut. ci diggante Waly Seck ak Sidi Diop. coow la amoon ca Bercy ba. Mm-hmm. buusee këccëb génn ni ña doon wax waali waali wala ñu doon wax maali maali li lañu wax maali maali maali. Mm-hmm. moom mu génn def ci vidéo te moom demut woon. Eh? maanaam li lay wan ni fit la am. lan la wax si vidéo bi Pawlish la wax si vidéo bi. ndax man moo wax dama koy fàtte fàtte naa ko sax. Mali beeg Mali beeg waali ba lañ la wax. lu ma ci bëgg a laaj. moom koy wax nañ ba pare gënoon ñu ëpp fulla gënoon ñu ëpp pànk nekkul ni da ngay noppi rek affaire bi mën nañu waxtaan suñu biir bàyyi la nga ne law. ma jàpp sama ñaam ma bàyyi fii. non non du question respecté ba ma mayoon lii ñu maye fii lu neex léegi mu toog rek le li ngeen may posé ba tey ko de Pawlish mi <laughs> de. yow amoo laf de. mais Adama Fall loo foog fooguma dara Adama Fall de cent gi mu cent gi mu xam Adama eh wu waata teg Adama Fall mi waaye foo wan hmm? man dama néegoon <laughs> woon waaw léegi néegatoo woon doo néegatuma ndax rëcc bugguma génn ñu ne dukkure moo noonu prince nit mais kii su ma man sama defet la lii boo ko moytu da ngay seere de <laughs> len di dinaa wax <laughs> mais jibi sa lekk rek man yii dukkure yàlla na la yàlla fay non du wàllu ñaanal de. da nga fay la ka fay de. balaa yàlla dama fay yaa may fay ba pare. xam nga man dànq dama ko gëj lekk. dànq dànq. boobu mooy sa quatrième dànq. mais Pawlish <laughs> Pawlish. waaw tey. waaw ñu gis ni. saa boo nee artiste. waaye am de yow da ngaa fàtte Pawlish wala lan. déedéet amul wala xamaloo ko dara. am de fay mais am dina jaxle kat yow mi nga taxawee position bi nga taxaw nii am bi jaxle. waaw mais parce que yéen bëri ngeen. waaw waaw yéen ñeent ngeen. yéen ñeent ngeen. yaa nu gën a bëri kaay kaay. kii kon man man a kii kese la mais yii ñëpp la waaw dégg dégg la waa léegi nag man xam la mooy sama problème mooy fi ngeen bëgg yóbbu émission bi newul foofu fan la ne émission bi couchant di rire la hmm. émission bi du confrontation du pour xeex hmm. ndax bu doon loolu la man Pawlish Mbaye hmm. wax dëgg ne xala du ma bàyyi sama yite jóge sama kër ñëw wallaay xamu ni woon sa yow lu ñu invité wallaay sëy ma ñëw gis la kontaan lool nag <laughs> kontaan bég xam ne jàkkaarloo naag naanaan boo xamante ni tey jii war na ma bégal war na ma mën a war na mën a bégal <laughs> ñi nga xamante ni ñooy seetaan waaye boo taxee ni ñu yaa gën a intelligent yaa nu gën a kii man je pense que côté boobu aussi euh, maanaam sa mënin la provoqué nit ndax bu yàggul rek mosoon naa dégg première euh, émission bi ma njëkk def ak yow fii ci 2S la woon boobu ma nga woon fële Pawlish Mbaye ni ma yàgg nga ci aar bu toogay daw. maa koy fàttaliku. mu nekk. est-ce loo xamante ni dama ni alhamdulilahi rabbi alamin ma sant yàlla. ndax itam baal ma de. <laughs> dañ maa yónni kii un deux trois quatre cinq. ndax itam la ca am solo ca wax jooju ba ma ka xool dama santaat yàlla xam ni. tey bu fekkoon lay nga xamante ni mooy jënd oto. defuma ko woon fa ma ko war a def. gàcce lay doon. kon yow yàgg nga ko denc soxal de. waa xam nga nag dafa am wax yoo xam neexul fàtte. barke Seydina ndax vingt ans de carrière ku ko def ñun la amoo oto. dafa metti waaye dama sant yàlla. nga mag mu toll nii tey Pawlish Mbaye loolu du yàgg. tey Pawlish Mbaye nga am ay ay naanaan yoo xamante ni. ñu lay jàppale. bu baax a baax ci sa liggéey. ma bëggoon a xam Pawlish boobaak léegi nga nekk ci liggéey bi nga xam moom mooy wàllu humour mhm. ndax mës nga cee am dara la ci métti mbay mbas maa ngi jéggalu na waaw parce que wax bi nga wax dafa solo lool. mos nga ko torop bi wax na ko de. wax bi wax bi nga am dafa solo. ñu mhm. may seetaan damaa ba ngi bureau parce que ji bi damaa posé question bu am solo. Mhm. ah bëgg. damaa posé question am solo. li may liggéey sérieusement nekkul sama liggéey sax parce que damay naxaate man. Hmm. mais sérieusement maa ngi koy nekk dix ans xaw ma di xooxi dof di nax sénégalais yi. di leen nax normal dix ans te ba tey maa ngi ci dëkk bi. Hmm. li ma ci gën a métti ci àddina. Hmm. barke Seydouna Muhammad nag. julli laa te julli mooy wax. julli laay wax li ma ci gën a métti. sama àddina li ma ci gën a métti te lii xol laa ko waxee barke alxuraanu karim billaay évité bi ngeen ma évité moom ma gën a métti sama àdduna yéen tey. <laughs> barke alxuraanu karim. yow kan moo la évité. yàq ngeen samay nelaw dèjà. Mhm. gisuma fi lu ma fi neex. Mhm. waxoole ma li am important. léegi kan moo la invité. yéen ma si palaat. non xaaral taxawal wax ki ma invité jarul xam. jarul ma koy wax jarul ma koy wax la koy waxee. jarul wax déedéet moo fi gën a métti invité bi ma invité Paul dafa réew. invité bi ma invité barki alxuraanu karim. may leen ma may leen ma may leen ma. billaay wallaahi barki alxuraanu karim. non non déet dafa am lu xew. billaay wallaahi. Pawlish. métti na ma trop. déglu ma fii. bi maa ngi dee maa ngi gée play maa ngi nekk sama métti. non waaw boo paree nga wax dégg. métti na ma trop. billaay wallaahi. eh eh Pawlish eh. wuy ma fii. waxal maa la déglu de. man invité wu ma. moom ma gën a métti. naqari na la waaw xaw ma ni woon sax yow. sànni kaa naqari na la moom métti na ma trop. moo wax la beneen affaire beneen bi si topp mooy. non. non nga ay non. métti na ma trop. xam nga la mooy wax fay kii foo. say juuro eh. jibisee foo laajte italien. yaa ngi dégg xam nga xam nga liy wax ji mooy. mooy police bu la loolu méttee man bu ma doon yow barke yonti yàlla Muhammad man ñu invité ci plateau. Mm. gisuma ma lu ma neex damay tekki micro bi dem sama yoon xamul tax. damay reyal temps damay reyal temps xaaral parce que manque la <laughs> respect. damay reyal temps parce que dafa fu may jëm minuit. damay xool jëm minuit damay reyal yow yow déjà. xam naa ni parce que en plus en plus damay xool seen mental. damay xool seen a seen intelligence fu mu toll ko xoolee ah, ah, parce que ah, xamal tax ji sa cerise bi nga mel ne tapusé non yow da ngay defaat <laughs> waaw ma neex laay Djibi Seye def introduction boo xam ne da ci piège u Pawlish Mbaye amul sax yaa ngi doon yow moo lay provoqué non non a gën a métti ci invité boo xam ne moo a gën a métti amul kenn amul kenn ci àdduna. kan moo invité kan c'est-à-dire seen ak ñoom. Ah, ki ma invité c'est-à-dire li ma war a laaj laaj ñu ma ko. te xam naa li ma war a laaj laaj ñu oh, ma ko merci. lan la war xamuñu nu leen jàppee sur internet barke sur internet la jàppee de parce que maay xool li ma neex nga laaj ma ko ma tontu la li ma neex ñoom ñoom ba tey ñoom ñi amul kenn ku ma laaj ma ko moo ma gën a metti ngir te kii jour mooy nitu nitu commentaire yooyu te kii jour dañuy tontu pour ay commentaire ak ay eh, man ay loolu intéressé ma nam leen defar man moo moo ma gën a metti àdduna wii ma fii sa baaraam bi meneen jikko yi dedd na doo ko indi ci télé bi déglu man mi suñuy jikko yi baaraam bi mel ne fiin waaw jërëjëf nga mel na mbootu bu bu ñu teg ah, non non non non du ma arrêté du ma arrêté yaa jëbi sëy bu ko waxal loolu te point tiram amul dugulee di xas nit ñi ay ngay mel na tapal kan point tiram déjà amul lay takkee sama point tiram amul ay toog mu toog di sa nga may wax sëy sëy simis bi ñaaw bu ñaaw dama koy wax yaa mu rafet nga mel ne koy dawle ni nga mel ne ku nekk roobu ne sa simis bi te su daal yi tuuti. ñun ñii ñun ñii su ma leen ma ma leen ma yi. daal yi lu li mooy forum toog di xaste. ko jotoon ay affaire mais ko jotoon su ma daal yi. maa ngi xaste. amul lu ko jot ne ci daal mais léegi jor na. mais te ci daal yi. mais te xale mu ndaw. daal bi daal bi kon léegi soog su ma leen ma liir bi mais te liir bi soog a judd daal kaw si bi say yéegi ay baa mais te kuy ñaral ma ne ko mais te kuy ñaral ba mu sol baa mu sol baa fi mais te kuy ñaral ay mangalante ay kenn xam yëpp dof li Djibi Seye non non bu defoon ci man rek kenn du la invité du kuré la du kuré la du kuré la Djibi Seye ah non du kuré toog nga eh eh <laughs> non non yaa ko invité amul eh, eh. yaa ma invité yaa mën a du ay xoolal yaa ma dàq dul waaw yow bii baa kan ma ko invité yow allahu akbar ki nga xam dund yow de yaa woon yaa ma invité ah Doucouré yaa ma ma woo ah, kii woo ne ma yi nga invitation bi moom mii kan yow yaa ko invité yow am waa léegi am bi ba nga xamee da ngay invité kii la moo tax ñun waxoon ñu ko man boo ma waxoon dama yàq sama ni nemm nemmaara. yow kii yow barke alxuraan kër ma ko ma. tey nag tey nag apatosité bu ma gisee seen romb dox ba gis dugg def li ma neex ngeen naan. barke yonent a laa la wax. da jàpp ni plateau bi ay marto ñu ngi ci suñu ay bi yor ay peel. baax na. xam nga lu ma ci neex. waaw foog nga comprendre kii dañ ko bëkkati xam nga dañ bëkkati koo xam ne day waat di waat bu leer nañ. alma la muy waat ak li am bokkut. kii gala Omar la yaa ngi dégg Omar Sëba moom ma amee émission mu woo ma Omar bàyyi ma day bëgg ñu koy tudd mais. yaa ko tuddaale sax mais jaay xam na ni. ma wax ah. xanaa xamul ñu ne ma wax seen plateau bi ah. ah. li tax nit ñi di ko gën a seetaan te muy am jëmm nit ñi di ko bàyyi xel normal. pour la première fois émission bi dem nañu vingt minutes yoo xamante ni. mu ne kan ba xoolal ah, kii si la bokk nag moo taaral moo taaral émission bi. moo la moo ko taaral. macha allah yal na la yàlla fal cat. barke alxote ba muy xew xale yi xewuñu. Mhm. ba muy rafet xale yi rafet tuju. ba muy góore xale yi góore ju te li tax mu neex mu yaay ma dëkk lu raar ci xale yi léegi. xanaa léegi commencé dëkk foofu. non non sérieusement nag sérieusement. non non non sérieusement déedéet. waaw yow déedéet déedéet. yow comme que xamee matul ñaari weer. xoolal Adama Fall yow xanaa yow lu ma xam war a xam. kii kii six ans ma ko six ans ma ko xam day tey. six ans ma ko xam six ans maa ngi xamante Pawlish. barke alxuraanu mm. karim moo dàq xale yi Dakar yëpp moo ci gën a góore moo ci gën a dal. sa appartement bi nekk ci moo ci ëpp moo ci ëpp solo moo gën a xam boppam ci xale yi barke alxuraanu kare muy ku rek ku dimbali famem ku dimbali gu jéem ba ku jàppale ku yor famem mhm. te kenn digg ko ci lu ñàkk fayda bu nekkoon li xale yi am mën na ko am parce que na foofu te dafa rafet moom mii si la bokk a moom ci yoon moo war a toog fii nag dëgg neexee yàlla parce que image dafa am nii dafa mënoo def image yow waxul léegi lan moo nekk image léegi pare nga ci man léegi yaa ngi yaa ngi jublu ci lan moo nekk image maanaam lii mooy sa for ay dàggasante ak seen image yi ah yi mooy forum ah ay dànkasante ay xuloog mag ay jàppale sa semis di mel na kii loolu maîtrisé wu xamoo alxuraan karim wallahi wal kitaab bi fa ma ko jëndee ci New York New York billahi wallahi wal kitaab barke yonent yàlla Muhammad laa lay wax Trump mu la sol boy simis mo la def boy def xam nga xam nga xam nga nit ñi ah. eh, xam nga nit ñi xam nga Trump chaque dimanche day dem xool hôpitaux yi. nit ñi ñi am doom nit ñi accouché nit ñi accouché simis yi li Trump yi sol moom nit ñi accouché xool kii jibi kenn xamul ne bindoo jibi kon kudulus <laughs> kenn xamul ne bindoo eh. waaw <laughs> ay da eh parce que aw non waxal na kudulus boo kudulus moom bu baaxul moom wax nga waxal non non non non <laughs> mais ji bi ji bi tey noonu lay def nii. ak duur waa yow. Eh. yaa ngi ànd yow. xol. non non non grand bu def loolu. xool gi naa ma yaa ngi ànd rek. li muy wax moom garaaw li ma aw na baadoola la. te boo xeexewoon na moom tey jii da a mooy lan. mooy li ma gën a métti. billaay ruse naa bi ngeen ma woo. xoolal loolu ni mu perturbé ay ay ay kilifa yu toll ni ñun. du ko ne nag yaa insisté ci woo Pawlish. yaa ci leen koy wooyee. man kan laa yow yaa woo Pawlish ñun ñëpp moo ñu woon nañu Pawlish la am. am na du dëgg. yow woo nga Pawlish midi ne ko ndax. dugubulee man la Pawlish invité ko problème la amul tax. Hmm. benn sañ mbokk dañuy jóg taxaw <laughs> ñëpp nii di xaar lan la war a wax. ak lan la war a yóbbu. bi mu ñëw waxul laa xam ne narul jàmm ça va du kuré te man sequma ak moom loolu <laughs> du kuré ça va ñëw toog fos kanam man ku ñëw confrontation ko wax eh, docteur docteur mais Djiby Sèye sérieux ah, dëggantaan Djiby Sèye dëggantaan da nga nuroo kudulu barke al yow eh. Eh. léegi émission bi jeex na tàggatoo la nga la mais nag balaa noo tàggatoo dafa am euh, les jeunes de Njaxiraat dañuy def sargal bu mag suñu mbokk artiste muy waaju baax. waaju baax di artiste boo xam ni tey ku ne ku ne boo ne waaju baax rek xam ni marqué na empreinte am marqué boo xam ni Sénégal maanaam comiquement ak comédie bu bu sincère. Mm-hmm. dafa am comédie yu sincère yoo xam ni dafa naturel. Ah. du ma ko gis ci waaju baax. Uh-huh. kon donc boo demee ba xam goxam di ko sargal. dëgg la muy vingt cinq décembre. au foyer de Njaxiraat muy première édition bi. Mm-hmm. sargal bu mag la man du ko naa ca teew. ñuy woo artistes comédiens yëpp. ñu teew ci loolu parce que ku sargal waa ju baax sargal nga waa timu artistes yëpp. Mm-hmm. incha allah le 25 décembre je serai là incha allah. incha allah. waaw. Mm-hmm. Kudulus na wax ba pare. <coughs> jërëjëf xamoon naa lii laa jëlee ci émission bi xool bu tàng <coughs> Kudulus <coughs> li ma liggéey ci aar yëpp Kudulus yàlla baax na. Euh, di gërëm Amdy Mignon invitation bi am na solo wax nañ ba pare wax ji kenn xamul lu mu doon ay loolu mujjee ay mag nga xamoon du ma fi ñëwal ay yéen a ma invité ak yooyu yëpp waaye yàlla bëri na sutura ba suba. <laughs> da nga pare tàggu ñëpp pare police police police tàggatool. kon day nelaw. waaw maa ngi nuyu ñëpp. Hmm. salaam. Ah? Euh, bi baax gaawal gaaw temps bi jeex na. non man kay maa ngi gërëm ñëpp ñu doon ñu doon doon seetaan di gërëm Pawlish ci disponibilité am. disponible invité bi nga invité. ok Adama Fall. waaw ah, di di di di di gërëm seetaan rek. et di kontaan ci ci ci invitation bi. ndax ça fait plaisir Pawlish moom waaw. non mais nag blague à part sama nit la nag sama xarit la. franchement fu ma dëkk fekk na ma. macha allah léegi balaa ñoo tëj ñu comprendre ci li laa investir sama bopp. te comprendre tañ jàppale ma ci. kon ko làmb naa fu ne doxul waa syndicat ñoom moo sponsorisé ku ci mel ni. yow nii rek génn nga vingt cinq mille. noonu la ñuy def nag ah, di profité tàggatoo ñëpp ah naa leen bu suba ak jàmm ak salaam. Hmm. ah ba suba am nañ invité kan. suba kaaw la ñu am. kaaw la ñu am kaaw bu Thiès. kaaw bu Thiès ah. Ah. ah. noonu la ñuy def Roqaya. Bumpaaya.